الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلة نتنك نتنك روتنا أبجلت لي خارتي موم موي نغم يالله ragal yàlla ak topp yàlla ñu war a waxtaanee nag sunu mooy yi nga xam ni lan moo ñu ci war a fekk ginnaaw ba ñu teggee gëm yàlla ragal yàlla ak topp yàlla lii lépp terewul ñu dëkk ci ñaawteef boo xalaat rek nit ñi ñu ngi ci ñu ngi reyante ñu ngi violer ay xale di violer ay màgget teg ci di leen rendi di yoole ay nit di di leen rendi ndax alal ak kilifteef wala nguur wala wala dombal tànk di xiifal ay population bu yàlla te bu yàlla lu yàlla tere daal ñu ne ko ñun dinañ ko def yoonal ngóor jigéen utal leen ay loi di wootal nag ñi nga xam sax defuñu ko ba ba forcer leen pour ñu def ko jigéen di concours yaramu neen demal ci réseaux sociaux yi rek doo sol dara doo sol dara nga naan man maa dàqale man maa gën a mel nii nga gis sa menam moroom bu def loolu mais ñu koy commenter sax ba ci télévision yi di ñii di daganal ñii di leen jàppale ca loola te loolu lu war a mën a deñ nag dañ ko bës rek lañ ci duggee lii lépp ci ñàkk yëg borom bi la ndax yàlla moom ragaluñu ko xooluñu ko rusuñu ko ba ñu defee ni sax nekkul ba ñu defee sax du dara mënaluñu dara fekk noppi suñu borom du dara lu lul ngëneel bu mu ñu defal waaye moom bugalam dafa tarta dafa yaatu ndax bu ñëwee day maase ndax danul am xàjj ak seen ñi ko tooñee ñu ëpp tooñu yépp lay boole mbugal yàlla ne ndax dangeen a naagu ne du xar suuf si mëdd leen ci walla bu leen yónni ngelaw buy sànni ay xeer fekk du leen am benn kiiraay lenn lu leen di yiir amul ci yéen waaye tey jii de yónni na yónni ngelaw de sànniwuñu xeer waaye li mu ñu yónnee bët mënu cee tege xam-xam téyewu ko kàttan ak doole mënulu ko ci moom dara yàlla subhaanahu wa taala boppam ñépp toog lépp taxaw li ko waral mooy virus bi bu ndaw bii coronavirus covid 19 ni dëkk bi tàngoo ak oh, oh, gaz bi ci kaw bii dëkk bi taxawee 8 pour cent na ci loolu. kon yàlla moo mel ni moo bëgg defaraat addunaam bii lu ñu bañaloon yàlla ma ni lu ñu bañaloon yàlla nangul nañ ko tey coronavirus. té mom de ab jaamam la rek suñu borom ba fété so soo la taxaw bëgg-bëgg rek moo ñu yóbbu lu nekk bëgg-bëgg amul fu mu yem soxla yi amul fu mu yem wayé le kilifa ko doon wax rek l'homme quel que soit le niveau de son développement historique a besoin a des besoins

praticien yu Afrique yi ak médecine moderne lëkkaloo ba ay garab man cee soqe ko ak a neexoon vaccin bi nga xam ni défi coronavirus Sénégal trouvé woon ko rek la santé n'a pas de prix mais soigner aussi n'a pas de prix c'est maintenant qu'il faut passer à les mettre dans des conditions de travail idoines

kon du mat ceeb bii du mat suukar sii du mat dawlin jii di indi xiiroo ŋaayoo xëccoo xeexoo xuloo njuuj njaaj ak naxante te ba tey gat mu ngi nii ña ca jot moom dañ leen di wàññi waroon na sax nag saak yi nga xam ne moo def ceeb bi ñu bind ci à ne pas yi def dawlin à ne pas yi def suukar si à ne pas def euh, euh, nuñ ko def pâte alimentaire à ne

ba nañoo toppoo nit ñi seen i kër ci mbas mii nga yëg ne ci dëgg-dëgg cooney daara alxuraan ci mbas mii nga ko yëg dëgg waaye ki nekk ci béréb ak i ndongom mais kooku ku mat a jàppale la ki nekk ci bërëb toog fa ak i ndongom ku mat a jàppale ngoogu ki ñu yóbbu ay ndongom bàyyi ko moom fu ñu jëme ndongo yi ndax fañ leen jëmee dañuy fa jàng te jàng boo leen taxoon a jóg yooyu yaa ñuy jàng nga jëleen yóbbu leen feneen ñuy def leneen jangal xalé yi bu mu ci ma a doon muy daara muy ci école française muy rek c'est la responsabilité de l'État cantine scolaire am na ci école française yi de boo wàccee añ waaw ndax am na benn daara bu am cantine scolaire bi leen di ndokkeel ci côté gii di leen sant ci seen teewaay di leen sant ci mesure barrière yi nga xam ni walil amri mi nga xam ni mooy docteur yi jox nañ ko ci fan yii te ngeen tegu ci nag gis nañu ni ñi fi teew yëpp tegu nañ ci lool